aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmaan arrahimi maliki yawmi ddin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina sirata almustaqima sirata allazina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala dalin amiin bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyoo fi ñu leen daan nuyoo muy fii ci jumaay sëriñ tubaa ji di nuyu sëriñ muntaxaa di ko jiital ci nuyoo bi di ñaan yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool te mu wér te ànd ko ak taalibe yi ak mbokki jullit yépp di nuyu suñ kilifa yi toog ah di nuyu tamitam euh, sunu yaay Bintu Saar sunu yaay soxna Mbayang Jum ak ñi mu àndal liggéey bi ak suñ bokki góor yi di ci jiital sëriñ ji Mbay mi nga xay ni war na fee teew te am gàllankoor ak sëriñ Biraan Ñas waaye tam ak sëriñ Góora Cooy mi nga xëy ni moom lañu àndal liggéey bi dippi daaw ba ci lu wàllu ci lu jëm ci wàllu xaalis bi bi nga xay ni moom lañ doon dajale ci at mi yépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di nuyu bokki soxna yi nga xam ne ñoo fi teew ak ñi fi teewul te ñépp a fi bëggoon a teew nag ngir fekke si jébbale bi waaye nag euh, li naan làmb dajul fépp moo ca nekk noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla suñu boroom guddal seeni fan yéen ñëpp wéere suñuy cër bañ yàgg koo def ay ati ati at te tal ko te fekke ko ci barke borom Touba. Euh, ginnaaw loolu tam bala ñuy leeral liggéey bi bëggoon na noo wax ni am na ay addiye yoo xam ne lu mel ni ay madaar ay siwo ay rakilet ay matériel yoo xam ne yu bari ñëw na fi ci at mi yëpp waaye nag mëneesu koo lim fii ndax dafa bari bari waaye goo xamante ni si ni mëneesu koo lim tax na xam naa ne buñ ko bëggee lim dana dana bari dana metti lool xam naa kon bu ñuy jàllee rek ku diglu ci groupe bi di nga ko ci dégg incha allahu taala kon loolu moom duñ ko fi mën a lim ah, ñuy wax tamit nam ñi sant soxna Njaxat Mbakke mi nga xamante ni moom dañoo ànd ak moom liggéey bi guddeeg bëccëg ak soxna Maawa Touré ak Serigne Basiru Thiam bi nga xëy ni moom moo ñu nekkal ci diaspora bi noo ngi leen di nuyu ñoom di leen jaajëfal gis nañ seenu taxawaay bu baax a baax a baax ci Moukhaddamatoul Khidma ak Touba ci kanam ak bokk yi nga xamante ni si ni ñoom it ci biir ci biti ci biir réew mi ak biti réew mi ñëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen jaajëf ci taxawaay bu rafet bi nu ànd ak ñoom bu ko defee nag liggéey bi nga xay ni moom la doon dajale dippi daaw ba ren mi ngi toll ci ñetti million ak fanweer ak ñeent ak ñaar téeméer ak ñeent fukk muy trois million six cent soixante onze mille deux cent francs million 3 millions 671 mille deux 200 francs ñetti million ak genn wàll ak fanweer ak ñaar ak fanweer ak ñeent ak ñaar téeméer ak ñeent fukki dërëm loolu mooy xadd yi ji nga xamante ni si ni moom la ñu fi dajale dipp daaw ba ñu xeeb ko lool waaye nag jébbal nañ ko Serigne Touba ci le 17 août 2024 te ñu ci dara ngërëmul sëriñ bi rek lañ ci lañ ciy séntu ngërëmul sëriñ Tuubaa dong lañ ciy séntu séntu wuñ ci leneen bu leen bu ñu leen neexee sax taal leen ko ak almet ñun su ñoon nekkatu jébbal nañ ko sëriñ Tuubaa waaw ñu ñaan yàlla nag ñu ko sëriñ Afiya Buse waxee woon daaw ñoo ngi ciy fasaale jullit yëpp di ci fasaale suñuy waajur ak suñuy njaboot waaye di ci fasaale suñu maam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ba ñu nekk fi nii tey fàttewun ci kenn ba ca maam Aadama ak Hawa yàlla nu yàlla boole tuyaa bi ju ñun ñëpp ak ngërëmul yàlla ak ngërëmul sëriñ Touba ngërëmul yonente bi ci barkeb Seexul Xadim ak sëñ Muntaxa ni ñëpp wax nag ni sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér ndax lii lépp mooma yàlla na wér te yàgg fi te li mu naalal sëriñ Touba yàlla na ko eggale ba naal yeneen ñu ànd ko moom ci barke Seexul Xadim noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax sant goo xëy ni loxool bidaaya wala loxool nihaaya ndax lu lu ci nit màgget màgget màgget ak loo ci tabje tabje tabje bu samedi jotee ku ñëwul sax boo nekkee sa kër sam xel fii la nekk yeneen yitte yoo nekkit sam xel fii lay nekk ñoo ngi leen di sant tamitam ci kilifteef gi ngeen xëy ni si ni yéen nu mag fuuf ba noppi jox na ko gis nañ ko bu baax ñuy gën di sant nag góor a cooy mi nga xëy ne moom laa àndaleen liggéey bi nga xamante ni si ni dynamique metti la ku ne xam na ne dajale koppar lu metti la di sant sunu yaay yi nga xamante ni ñooy so mooy soxna aram soog ak soxna ndikku béy ak maam jaara ak yaa xadija ñooñu nga xam ne ala kulli haalin foo leen fekk ñoo ngi bind ñoo ngi maas ngir bëgg leeral ngir bëgg a setal te lu ñu bind moo fi nekk lu ñu bind rek lu ngeen gis ci ñoom ñoo ko bind moo fi nekk ñooñu ñu mat a jaajëfal la ndax liggéey bu metti lañuy def amuñu benn temps amuñu benn jot noo ngi leen di sant yéen ñëpp fàttewuñ kenn bàyyiwuñ kenn wasalaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin sant nañu yàlla julli ci yonentam sant ahmadul xadim lu yaato yaatu jaageen jëf jaageen jëf ngeen wàcce gut waaye lii ma hubbee muy alhamdulillah lu war la lu war la ci ñépp rawatina ci yéen sëñ Muntaxa yàlla na yàlla gën koo dëgëral mu yàgg fi yàggu kéemaan ay sémbam yépp mat sëkk coleet te ñu ànd koog moom te dàkk ca ngërëmul ahmadu xaddim te daje koog daje caak moom sant nañ bu baax na ngeen sant ndax dangeen a dajeeg tawféex ku sëñ bi nekk murit ndimmal la waaye Ahmadul Xaddim liggéey loolu tawféex la xaas la xaas la waaw kay xaas la Sëriñ Tuubaa liggéey loolu la xaas la lii ngeen nekk ab juddu mayewu ko xalal mayewu ko xam-xam mayewu ko lenn lu koy may amut lu dul tànnuk Ahmadul Xaddim bu doon ab juddu sëñ Fallu yàlla yàlla fayal ñu ko du doon ki mu doon wëlbatiku génn ca lam doon dugg ci taalibe am déet kon li ngeen nekk rek a wér murit yi ci réew mi soxla yi ci réew mi kenn xamuluñ luñ waaye lii ngeen xam ku dul yéen amu ko sikk amu ci maanaam liggéey loo sëñ la fan liggéey Tuubaa gi fan ci barabam bii muy nopp loo dara tolliwu ni kon na ngeen sant bu baax yàgg nag day dëggal yàgg day dëggal yàgg day dëggal téeméeri at ginnaaw ba mu demee wér na ne lam nekkoon dëgg wér céng la yàgg it dana leeral lu nëbbu woon ñu foog ne noona la te duna gi yàgg nag daa leeral ne Ahmadu lam nekkoon mooy dëgg tey mooy nokk ëllëg dëgg ba fu mooy nekk dëgg am ngeen ndimbal nakk nekk ci biir kon na ngeen sant bu baax te góorgóorlu waaye dëggal rawatina ndax lu waay mënti am te jiitalu ci ak dëgg akuk dëggu sallaaw sallaaw ak ku mënti doo dana nekk ci loxoom waaye dana dana mas a génn ci ay loxoom na ngeen bëggante na nawante na ngeen séeréel seen lépp Sëriñ Tuubaa foofu la mbir mi ne ku mënti doo mbàkkeeg faal ak yàdd ak keneen ci yem lépp lu fi waay di def te séeréelu ko Ahmadu dana ko ñàkk te duutu ko am kon lu ñuy def yéene ak jëf yépp nañ ko seereel Serigne Touba kon jaa jëf wu ngeen wàcce gut sant nañ bu baax gërëm nañ lii yàgg naa koo yéene bu ma leen rombee sama xol day sedd guy sànq laa leen romb di ngeen di bale rang ma ne waaw góor nii la léegi la ma doon bëgg a wax mooy ci mbindum Ahmadou nee nañ wax na ci ca booba ne booba fii ngeer kepp fi wër danañ dem ba jamono ñu bokk ay yére ànd di ma liggéeyal ci saa saa saa barab bii mooy lii mooy lii mooy lii sikk amu ci sikk amu ci kon sant leen bu baax te góor góorlu lu ngeen góor góorlu doyut li ngeen am kenn mënu koo xayma kenn mënu koo xiyaas ak cant la euh, ñu santee ko nag kii sëñ Muntaxa ndax ab sag la ndimmal la aw fit la cëslaay la ku ko amut ku ko amut laa ne boo sañoon am ko kon ñun ñii ko am nañ xam li ñu am ndigalam di lenn ñu jàpp ca bañ a jaar ca wet ga lam wax noona la lam waxut bu ñu ca kenn séen yàlla na fi gën a yàgg te ànd ak wér ak kattan salaamaaleykum wa rahmatulah jàggeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar te di leen màggal bu baax a baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ba naa li mu yéenee liggéeyal sëriñ bu mag bi mu def ko ba def ci lu kawe njort te ànd koog ñun jullit yëpp. di ko ñaanal sunu kilifa yépp Mbàkke Mbusoo beeg Faal bàyyiwunu kenn ak mboolem njobootuk sëriñ Tuubaa gi buñ ne njobootuk sëriñ Tuubaa gi ëmb boppam gi ëmb na seex si waaye ëmb na mbokki taalibe yépp bàyyiwunu kenn fii ci daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi fab nuyoo bi di ko teg ci loxob sëriñ Seex Abdu Buso ak sëriñ Abdu Lahad Jatara ñu tegal na ko ci loxob sëriñ Afiya Buso ak mboolem njobootuk sëriñ Tuubaa gi àndal liggéey bi fii ci jumaay sëriñ Bàmba ji waaye di bu baax a baax soxna Bintu Mbàkke di ko jaajëfal bu baax a baax di rafetlu ab taxawaayam di siyaar soxna May Muntaxa ci seenub teewaay ak mboole mbokki taalibe yi nga xam ne amoon nañ yéene mbokki kilifa yi nga xam ne amoon nañ yéene teew te teewuñu waaye di bu baax a baax sunu jëwrin yi toog muy soxna Bintu Saar ak soxna Mbayang Jum di jàmbaare Serigne Touba yoo xam ne ku xool ci ñoom doo sonn doo tàyyi wenn waxtu ak senn saa duñ wax mukk dem leen dem leen te ñëw. waaxu si leen ñu dem rek la soxna Bintu saar di wax ak soxna Mbayang Jum ñu di leen jaajëfal bu baax a baax fas yéene fee wàcce kàdduy cant yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna Bintu saar jëm ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéeyub Serigne Touba bi di Muxaddamatul Xidma waaye soxna Bintu saar mi ngi sant bu baax Serigne Moustapha saar mi dib xalifaam fabu woon ba ñëw bëgg a teew ci jataay bi def ko dam ko daan defee waaye xam ngeen ne taw bi rek moo ko téye waaye yéeneem egsi na bu baax a baax ak ñaanam ak njabootuk sëriñ Bassirou Sarr gépp soxna Bintu Sarr mi ngi leen di sant di leen jaajëfal bu baax di rafetlu taxawaay yëpp soxna Bintu mi ngi sant soxna Bintu Mbàkke ak mboolem ñi mu àndal mi ngi sant soxna Mbeen Mbàkke ak mboolem ñi mu àndal mi ngi sant soxna Sofi Mbàkke ak mboolem ñi mu àndal soxna Bintu saar ba tey mi ngi sant soxna Mbay Mbàkke Muntaxa ak mboolem ñi mu àndal liggéeyub Sëriñ Tuubaa di sant soxna Fatja Mbàkke di sant soxna Njaxat Mbàkke di sant soxna maam say Mbàkke soxna Bintu Saar ba tey mi ngi sant soxna maam Faati Mbay di sant soxna Jabaara Mbàkke moom sëriñ Muntaxaa mi ngi sant soxna Jaara moom sëriñ Muntaxaa di sant soxna amisila moom sëriñ Sooyibu mi ngi sant soxna maam Awa Ture di sant sëriñ Baara Mbàkke xel koom di sant Baay sëriñ Faal mi ngi sant soxna Anta Wadd ca Njaañ mi ngi sant soxna Ndey sekk ca Njaañ di sant soxna Binta Sarr ca Njaañ di sant soxna Bintu Seck ca Gëti Yaaram di sant soxna Fat Sayar Diop ca Amérique waaye di sant sëriñ mbayloo Loo Ja soxna Bintu Sarr mi ngi leen di sant di sant mboole mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal fii ci Touba di liggéeyal Serigne Touba waaye di sant tamit mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal ci région yi waaye di sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di sant kilifa yi bu baax a baax di leen jaajëfal nee na mboolem ku mbokkal pas-pas di sant sëriñ daraw ndaraw gasama mi ngi sant sëriñ ndaraw gasama bu baax a baax di ko jaajëfal di rafetlu ab taxawaayam nee na mi ngi sant góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku mbokkal pas-pas ànd ak yow liggéeyub sëriñ Touba bi soxna Bintu Sarr nee na mi ngi lay sant nee na mi ngi sant soxna Khadija nee na mi ngi sant soxna maam Jaara Jaw nee na mi ngi sant soxna Maram Diagne ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal liggéeyub sëriñ Touba bi di sant sëñ Gora Thioye bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñeen nee na mi ngi sant soxna Fat Dieng is bu tarxeya borom mburu mi soxna Bintu nee na mi ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal nee na daa tolloon ne boo limee man ngaa bañ a juum waaye mu mat day yàgg te toogaay bi yërëm na ci kilifa yi yërëm na leen ci yéen ñi nga xam ne ca fajar ngeen jógoon ba tey ñëw ci liggéey bi sonn loolu te war a dellu ca kër nee na waa Daaru Salaam soxna Bintu Sarr nee na mi ngi leen di sant nee na képp koo xam ne teew nga te bokk ak moom pas-pas nga teew wala nga amoon yéene teew te teewoo soxna Bintu saar nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal di ñaan liggéey bii nuy liggéey yàlla nañ ci tasee ngërëmal sëriñ Touba akuk fayam mu làqal nu jëf ji fa yàq yëgut fay nu ngën gi fay nu yàgg koo teewet ci barke alxuraanu karim soxna bindu nee na mi ngi sant sëriñ Daouda Ndiaye di sant sëriñ Mame Balla Thioune ñu ngi leen di sant bu baax ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey sëriñ Touba bu tedd bi di sant sëriñ Njaga Mbaj moom itam mi nga xam ne mooy taxawee ca wàllu ndox ma nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax te leen jaajëfal sëriñ Cheikh Lo soxna Bintu Sarr mi ngi koy sant di sant ñëpp di sant sëriñ Fallou Diaw mii nga xam ne sunu doom la mooy mi ngi koy sant bu baax a baax di sant mbokki taalibe yëpp mboolem ku mu pokkal pas-pas rek moom Bintu soxna bind Sarr mi ngi lay sant di la jaajëfal muy ku teew wala ko amoon yéene teew te teeluwoo te saw ñaq di dugg ci liggéeyub sëriñ Touba yi nga xam ne ci la nekk te di ci woo képp kum bokkal pas-pas di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax ne képp koo xam ne déggoo saw tur jàppal ci sab xol ne soxna Bintu Sarr yow la jiital ci cant gi ak jaajëf ji ak ngërëm le nee na mi ngi sant bu baax soxna Aram Sock ak ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéeyub sëriñ Touba bi di sant ñëpp bàyyiwunu kenn waaw nee na soxna Bintu Sarr nee na mi ngi sant soxna Mbayang Jum bu baax a baax muy jëwriñ ji nga xam ne moom la ko sëriñ Touba booleel ci liggéey bi muy ànd ak moom saa su ne ak mboolem ko ànd ak soxna Mbayang Dioum soxna Bintu Sarr mi ngi lay sant di la gërëm te di la jaajëfal ñun li ñuy jëf sëriñ Touba tax ñu di ko jëf ñoom danoo baax rek du ñu sant waaye sëriñ Touba la ñuy jëfal te du jaawale jëfi kenn ak morom ji kon ay ca ay ca liggéey bu mu laal na sax dàkk suñu giirug dund jërë ngeen jëf waaw Baye Ndong Baye Ndong tamit soxna Bintu saar mi ngi koy sant bu baax a baax Baye Ndong ñu ngi koy sant di rafetlu ab taxawaayam mag la waaye ku gunge ci liggéey bi la kon soxna Bintu saar mi ngi sant Baye Ndong di ko jaajafal bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp waaw nee nañ mboolem ku fi toog tey am nañ yéene jaar ci saw tur ak saw sant ak mboolem sax koo te teewu fi seeni addee di ñëw ñii seeni ñaq di ñëw ñii seeni jëf di ñëw yéen ñëpp nee nañ am nañ kenn ku ne ñu am yéene bindoon ko ab lis jaar sa tur ak sa sant ak fa dëkk jaajëfal la bu dee ku jiite mboole am nañ yéene tudd la yaag sa mbooloo yëpp waaye nag lim bi moo doon matale te toogaay bi yàgg na te xam nga ne jamonoy màggal lañ ne te bis bii day bis boo xam ne ndegam ña nekk ña jiitu ji ñoo koy yëg di ko màggal asamaan ñun ñii fi nekk ci kaw suuf lii rek mooy tax kàddu yi ñu di ko gàttal waaye sant nañ ñëpp gërëm ñëpp jaajëfal ñëpp bàyyiwunu kenn waaw sëñ waaw sëñ Abdoulaye Diatara ak sëñ Cheikh Abdou Bousso sëñ Cheikh Abdou Boussa ak sëñ Abdou Lahad ñoo ñooñu suñuy xarit lañ di suñuy féete du suñuy àndandoo di ñu bokk ak ñun pas-pas neex a àndal nag di liggéeyal sëriñ Touba ñoom tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen jaajëfal. di ne ba tey ci canti canti soxna Bintu Saare soxna Bintu Mbacke nee na mi ngi sant jàmbaari sëriñ Touba yam àndal liggéey bi te dikk tegoon leen ci loxob soxna Bintu Saar te nee na keroog ba mu leen ci tegee ak tey su ñëwee moom soxna Bintu danañ ñëw su ñëwut tamit ñoom nee na danañ ñëw di indi seeni i àddiya di indi seen i di ko jox soxna Bintu Sarr kon soxna Bintu Mbàkke mi ngi sant bu baax jàmbaari Serigne Touba yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi nee na di sant tamit soxna May Muntaxa mi nga xam ne du ci jumaa ji jëfam du fi di ko jébbal soxna Bintu Sarr moom it soxna Bintu Mbàkke mi ngi koy sant soxna Bintu Sarr mi ngi koy sant bu baax muy doomi Serigne taxaa ñu di ko siyaara di ko ñaanal gudd fan ak wér ak jàmm di ñaan suñu borom gën a taxawaay dëgëral ab taxawaayam di sant soxna maam Faati Mbayum sëñ Abi bi mu toog di bàyyi faalub sëriñ Abibu ak mbooloom ñoom it soxna Bintu saar mi ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan ñëpp tase cee ngërëmal sëriñ Touba soxna Mbène Mbacke soxna Mbène Mbacke moom sëriñ Abibu ñu ngi koy sant baax Mbacke di ko ñaanal bu baax a baax gudd fan ak wér taxawaay bu sax dàkk ci barke alxuraanu karim soxna Bintu saar nee na mi ngi sant sëñ Ahmadou Samb nee na saa su ne day yónnee ay jëfandikaay muy bagage yu bari di ko indi ñu di ko soxla fii ci jumaay sëriñ Touba bi ji mu jëm li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci liggéey bi kon soxna Bintu Sarr mi ngi sant sëñ ax sëñ Ahmadou Samb bu baax a baax ca Touba Lansar di indi ay kàddu cant yoo xam ne mi ngi jóge ci sëriñ May Mbàkke soxna May Mbàkke moom sëriñ Muntaxa di wax ne doomi sëriñ Touba laa nee na wala ab sëtam laa kontul fii ci dëkkub sëriñ bàmba bi nee na li wér sax mooy taalibeb sëriñ Touba laa nee na moom taalibeb sëriñ bàmba rek la nee na moom ak mbooloo mi mu àndal ginnaaw yàlla bu ñëwee ci jumaay sëriñ Bamba ji di fi liggéey nee na mi ngi koy sante soxna Bintu Mbàkke nee na moo yaayam ñoo bokk baay mu wëlbati ko waat doonoon maamam waaye ni mu doon doon sëtub sëriñ Touba nee na ak ñoom fii ci jumaay sëriñ Touba jii di fi liggéey mi ngi jaare ci soxna Bintu Mbàkke te moom sëtub sëriñ Touba la kon nee mi ngi sant soxna Bintu Mbàkke bu baax muy maamam di waajuram ndax nee na moo yaayam ñoo bokk baay nee na moo mboolem mi ma àndal yëpp nee ñu ngi wëlbati ko waat di yeesal seen pas-pas ci ginnaaw soxna Bintu Mbàkke te di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ak jàmm ak xéewal ndax ndax lii muy liggéey ci jumaay sëriñ Touba ji nee na ci soxna Bintu Mbàkke la jaare te moom sëtub sëriñ Touba la soxna Bintu di yaayam di maamam nee na mi ngi lay ñaanal bu baax a baax nga am fan wu gudd am wér am jàmm am xéewal nee na mi ngi yeesal pas-pasam di feddliwaat ak laxasaayam fas yéene ànd ak yow liggéeyub sëriñ Touba bi yéen ñëpp nu ànd liggéeyal ko fii ci jumaam ju tedd ci mi ngi sant bu baax ak a gërëm ak a jaajëfal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi leen di nuyu. nuyu bu gën a tedd di jiital ci nuyu bi sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di feddliwaat sunu kële rek ak mu daayiratu Muxaddamatul Xidma daanaka la ma ci waxoon daaw du jar ma di ko wax ndax daayira bi moom daayira boo xam ne ñun ñëpp ci lañ bokk ñii nga xam ne nii ñoo ñoo yor daayira bi ñoo ñoom ñoo bokk màggandoo fii ñii ñoo leen mag ñii ñooñu mag bokk jànge ci diggante sëñ Afe Ñang sëriñ Moustapha mbay sëriñ As Jaxate ñun ñëpp jenn jawwalal mos ñoo génn Touba waaye soxna Bintu mbooloo mi nga ànd ak ñoo yónnee ay kaddu yu jëm ci yow kàddu yu cant ak kaddu yu ñaanal rawatina soxna Fat Dieng mbooloo mi nga xam ne nii ñoo ànd ak yow liggéey bi ñoom ñëpp ak fu waay mën a jóge soxna si lim na leen du jar ñuy lim ni ngeen ko dégg rek noo noo ko lima mbooloo mépp ak fu njiit nekk. ñoom ñëpp ñu ngi lay delloog cant cant ku am ab tàmbaliwaay waaye amutab yemukaay waaye yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak soxna Bintu ci daayira Muxaddamatul Xidma bii loolu du asar maama mu yóbboon lettre ba bàyyam moom la moo doon liggéey si Abdu Lahat ba mu tudd ko jaamu jaamu jaamu jaamu Tuubaa waaye kon bu nekkee ci lii loolu koy wàcc na waaja ba ne ko ba ba ban demee ca daara ja di jàng ñoom ñëpp mu nekk fa mat fa mbooloo mat fa mbooloo mat fa mbooloo ba mbooloo ma bari bés leen sëriñ bi di ñaanal ne leen kenn ku ne boo demee na nga liggéey na sa baay daan liggéeyee ka gën a mokkal alxuraan gën a ragal yàlla moom baay ba mu dikkee ci yaayam ci gàttal ñi xam nañ xisa ba ba mu ko laajee baayam lu mu daan liggéey mu ne ko sàcc ba mu sàcc yaakaar naa sàcc gi na ndax donn baayam kon nag Eh, sëñ Tuubaa day wax ne al waladu wala daani waladul xalbi waladu sulbi yaakaar naa yow doomu xol nga waaye doo doomu ndigg kon lii da nga ko donn yàlla na la ci yàlla jàppale su ko defee yéen waa daayira bi tey Muqaddamatul Xidma ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm ndax ñii buñ bëggee liggéey te tegul leen leen ci yoon wi duñ dem ndax ay jigéen lan tànn béer yaa fi ndawtal yaa ngi fi ndagarwal yaa ngi fi lenn lu ne ngi fi ñu tànn liggéeyal sëñ Tuubaa mënu ngeen leen seetaan ne fi kër kër yi ba waaye bu ngeen diggee ngeen teg leen ci sart yi tax a jariñu ba sart yëpp ñu matale ko muuraay gaag colaay gaag waxin waag defin waag waxtu waag yar baag teggin gaag béréb beeg li ci aju lépp ñu ngeen teg leen ci yoon ban ban ba ku leen seen xam ne ñii niti aljanna lan kon yéen ñi doon liggéey liggéey boobu ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati démb damaa toog ba mu yàgg bi bi bi sëriñ bi ki doon def waxtaan wi ci baas bi sëñ Afe Bousso bi bi muy sëñ Assane Bousso bi muy waxtaan damaa toog ba mu yàgg ma ne ñetti daayira yii sëriñ Touba mun leen woon a ñàkk ni nga ndax daayira muqaddimatul xidma daayira Touba ca kanam daayira bu tarxee damay wax ñetti mbooloo yii booy xool dangay jàpp ne ñii moom sëriñ Touba mun leen woon a ñàkk kon mbooloo mi kaddu yi ngeen ne woon nan ko jotal soxna Fat Dieng nag da cee dolli ne moom fi ni wàcc sun kaddu mu ne ma seereel leen soxna Bintu mii moom moom ba mu waajee bay bëgg a dem Makka avion dafa tarde nee na bi mu dikkee mu wax ko soxna Bintu soxna bind sol aw dàllam ànd ak moom ba ci sëñ Abibu sëñ Abibu na ko ba soobee yàlla da nga dem nee na mbooloo moom àndaloon ñëpp a dem ñëpp a tardé waaye moom ba mu àndee soxna bind ñu dem ci sëñ Abibu ñaana leen looloo boobu lañ dem kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di wax yàlla nañ ko teew ay déwéni déwén. ci barke alquran karim taw xew ndox xéewal la rek ndox warta wax moo tax ñu ñëpp ñu jaayante ñëw yàlla na suñu borom defal ñu fan gudd wànd wér gu liggéey bi yàlla bu ci seytaane amu yoon yàlla na ngeen ci dajee ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla na ngeen ci dajalee ngërëmal sëñ Muntaxaa yéen waa xidma yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla taxaw Sëriñ Saaliw mi leen joxoon ndigal ba ngeen tàmbali liggéey bi yàlla na ngeen dajee ngërëmam sëriñ Assane ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm soññe yi duñ ci dugg ndax li nga wax doy na salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala wa ala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel. di leen baalu àq di baal àq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gépp di leen nuyu tamit ci turu Serigne Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite liggéey bi di mu Muxaddamatul Xidma nga xam ne dañoo boole ànd boole seen bopp ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji di tawféex ju rëy rëy yoo xam ne sant nañ ko sunu borom kon ñu ngi leen di nuyu ci turam ak ci turu kilifa yi daayira bi yëpp sëñ Abdou Lahad secrétaire général ak kilifa yëpp di ko sëriñ Cheikh Abdou Diatara waxe léegi jàpp naa ne dal na kilifa yi xëy na ba ci teewaay bi xawa a yeex muy taw bi comme ni ko soxna Bintu waxe léegi ci kilifa ak boppam googu waaye ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu gën leen a woyof te yam ak ñoom ci liggéey bi moo tax ñu ñëw wutu leen fi man mii ak sëriñ Fallou Mbacke bi nga xam ne mooy jëwri ni liggéey bi jiite commission organisation ak sëriñ Abdoul bu Bousso Anta sëriñ Abdoul Ahad Bousso Afia waaye ak seen jëwrin yi nga xam ne jëwrin yi nga xam ne ñoom lañ leen booleel ñu dox seen digg ak daayira bi muy sëriñ Cheikh Abdou Bousso sëriñ Abdou Lahad Jatara ak euh, sëriñ Fallou Samb sëriñ Xaadim Kanji sëriñ Moustapha Mbeng ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi yépp ñi ngi leen di nuyu ci turu ñooñu ma tudd ñépp ak jëwrin yi fi nekk mel ni sëriñ Assane Yàdd kàddu yu am solo yi di jëwrin tey mag li tax ñu bëggoon mu wax kàddu mooy lu maanaam jëwrin la te mag la te yàgg na ci liggéey bi te ay kàddoom danay am solo ndax témoin lay doon ndax ñoom ay ay caali yu mag lañ yoo xam ne maanaam lu ñu xas këf rek moom kenn du ci jot te jàpp naa ne ni mu ko waxee bu leen di romb dana leen ñee waaye na fexe ba bu leen ko xajal rek <laughs> ndax moom ñoom moom kon si ñaasan yow it kàddu yi ñu lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi fi teew yépp rek gannaaw loolu ñu am mbégte ak xol bu sedd ak tamit yéemu ci pas-pas bi nga xam ne sunu mbokk yi nga xam ne di yenn ñi di ay yaay yenn ñi di ay mag ay bàjjan ay rakk ci liggéey bu rëy rëy bii nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji moo xam ñi teew fii ak ñi nga xam ne teewuñ fi ñu ngi bitim réew te doon ñoo xam ne waxtu wu nekk dañuy participer ci liggéey bi ci lu koy doxal mënuñoo ñàkk jaar ci seeni tur nag ngir mu yóbbaale ñi ci des ñi nga xam ne dañu ay kilifa yu mag ñàkk jot lool te waxtu wu nekk saa su nekk ñu ñëw di liggéeyal sëriñ Touba ci jumaa ji moo xam muy taw moo xam muy naaj moo xam ñu am jot wala ñu ñàkk ñi ci tudd soxna Mbeen Mbàkke mu sëriñ Abibu sëriñ Abibu imam ak rakkam soxna Bintu Mbàkke mu sëriñ Abibu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen sant waaye di nuyu soxna May Mbàkke moom Cheikh Mahmadul Muntaxa mi nga xam ne nag mooy jëwri ni borom liggéey bi lépp lu ñu def rek ci jumaa ji wala ci lu mën a doon lu daayira Muxaddamatul Xidma di def ci ndigalam la lépp ndamam la ndax boo fi nekkal sëriñ bi ko lu ñu def rek moom la ñu koy defal kon soxna May ñu lay nuyu bu baax yow di nuyu soxna maam say moom Cheikh Abdoul Mourtada waaye di nuyu soxna Jaxat Baye Fall moom Cheikh Abdoul Ahad euh, di nuyu tamit soxna Jàmbaara moom Cheikh Abdoul Mountakha di nuyu soxna Fat Dia moom Serigne Abibou di nuyu soxna maam Awa Touré moom Cheikh Abdoul léegi ñu koy nuyu moom it di ko siyaare bu baax a baax. di nuyu tamit soxna maam Faati Mbay moom sëriñ Abibu bu Cheikh Amadul Fadal moom it ñu ngi koy nuyu bu baax waaye di biral nuyoo tamit soxna Bintu Saar moom sëriñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Tuuba ñu ngi koy beral nuyoo ak mbooloo bi mu àndal ñépp moo xam ji teew ak ji nga xam ne ay jëwri nañ loolu te te teewuñ te nekk bitim réew te di ñu teewul di nuyu tamit soxna Mbaye ak Jub moom it di jëwri di Serigne Touba joo xam ne ci liggéey bi ràññiku na ci lool ñu ngi koy nuyu ak mbooloo bi mu àndal ñëpp ni mu ko waxee léegi di fàttaliku bu baax ak a ñaanal Cheikh Mamadou faadal Mbacké Jumaada yi teewlu ci barab bi ndax liggéey bi ñoroon na ko lool di ko ñaanal sunu borom gën a dolli yërmandeem gën a dolli leeram te kattanal dëgëral ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ba ñu wéyal mission bi wéyal liggéey bi ñu koy nuyu bu baax di nuyu tamit sëriñ Pape Diop mi nga xam ne moo yor wàllu finance te yëkkati kàddu yu am solo yi yëkkati léegi di kàddu yu pësteefu yoo xam ne it tegu na ci pas-pas ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxna Aram Soog bi doon yëkkati kàddu moom it di kàddu yu pësteefu yu leer soxna Dikke Bey soxna Mame Diarra Diaw soxna Khadija sëriñ góor a cooy képp koo xam ne daal bokk nga ci jëwrin yi gàkk liggéey bi fàttewuñ la ñu lay nuyu bu baax a baax di la tatagal di la jaajëfal gannaaw loolu nag kàddu yi ñu yëkkati ci turu sëriñ Afia ak turu daayira Muxaddamatul Xidma bu jëm ci yéen dañuy jëkke ci sant sant leen ci liggéey bi muy liggéey bi nga xam ne ñu koy def ci jumaa ji ci gaaw bu jot di ñëw di bale jumaa ji lépp loo xam ne gis nañ ne luy duru ak toq la wala poussière wala lu mën a doon ñu dindi ko ba mu set raxas karo yi ba mu set te xam ngeen ne espace lii di espace su jumaa ji ëpp na juróomi junniy mètre carré kon loolu liggéey bu rëy rëy la te bu fajaree waxtu wu nekk man su ma jullee fajar ci jumaa ji bay génn laay dajeeg yéen ngeen di dugg nga xam ne kon leer na ma ne waxtu yi yeewu teel na ndax ku agsi foofu ci jumaa ji boo jógee fu sori kon teel ngaa jóg loolu di pas-pas bu rëy rëy boo xam ne ah kuy seetaan wala ngay dégg kàddu gi day war na leen a war na leen a kañ waaye nag taw feex sëriñ Tuubaa la taw feex sëriñ ndax sëriñ bi kat moo yor ay jaamam yor ay taalibeem di leen tànn kenn ku nekk moo lay jagleel lam la jagleel waaye jàpp naa ne ku jagleel nga am xéewal di liggéeyal sëriñ Tuubaa ci jumaa ji day am nga jagle gu rëy rëy ndax kat barab bii waxuma la ku fiy jëw di bale wala nga di fi liggéey waaye kiy jëw ci jaww ji rek di farakante penc bi di fi toog asamaan si di la tiim ngay noy jawwi jumaa ji danga am daraja joo xam ne du yam mukk ak daraja yi ki ko du def loolu waxi sëriñ Tuubaa la moo waxoon ne képp ku feeñ ci liggéeyub jumaa ji dootoo réer ba mukk ci àddina képp ku ci réer dootoo feeñ kon loolu taw feex la ci jur ji nga xam ne waxtu wu nekk ji ngi fi lu suñu ndam war nañ cee sant suñu borom bu baax a baax sant ci sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi kat barabam bii ñett yi moom am na fayda yi du ko fi nangu mooy du nangu ko fi def dooleem te neexu ko wala nga def fi sa alal te deexu ko walla nga di ci jëf loo xam ne deexu ko kon ku fiy jëf rek boo la tànnal boppam kon loolu tawfeex la jàpp naa ne kilifa yu tedd yi ba lim léegi doonte cër bi ñu am ci Sëriñ Tuubaa li muy rëy rëy waaye xam nañ de liggéeyal Sëriñ Tuubaa du doy ndax sëriñ bi ci boppam moom bi ñu liggéeyal busta tay busta bus ta dàcc su ma saa yëkkati nit sax jox ko dara bu ne ko jasaawul jasaakallaahu xayran day jaabante di ñëw di ko àddil ba kooku moo koy yërëm ci jaabante bi mu doog a noppi kon koo xam ne loo jox nit bu la ne yàlla yàlla fay yiw rek sax bu di liggéey bay jël ay bagaasam di roñal boppam ngir xam njariñ li nekk ci liggéeyal ko loolu nag dama ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa baaxe na fu ne waaye fii la gën a sekkee fii ci barabam bii dafay sekkee nag dafay sekkee loolu Cheikh Cheikh Abdou Khadir wax na ko nee na jaamu yàlla baaxe na fu ne waaye fii la gën a sekkee rawatina nag kon ci barab bi kon su fekkee ne loolu yéen a koy def diirum at bi waaye su màggal ñëwee nag coono yi li muy bari bari xat-xat yi ak war-war yi li muy bari bari teewut kenn ku nekk la nga am ak su néew nga ne man kat dinaa jël addiya ngir def ko ci liggéey bi liggéey bi mu dugg ci liggéey bi muy lu rëy rëy ci ñun nag muy lu naw muy addiyee ju rëy rëy ngeen dajale ba dajale trois millions six cent soixante onze mille deux ñetti million ak juróom-benni téeméer ñetti million ak euh, téeméeri junni ak ñaar fukk ak fukk ak ñaar ak ñaar téeméer ak ñeent fukk yaakaar naa loolu la loolu nag euh, wax dëgg yàlla liggéey bu rëy rëy la bu kawee la bu abal jariñ tamit liggéey bi la ndax liggéey bi daayira bu xadimatul xidma dafa bari lool te jàpp naa ne mook dépasse yi joxe suñ kër ñooyam mook dépasse yi nga xam ne dañu xëy di ko joxe nga xam ne mën na ñàkk barab bii liñ fiy def loolu ñooyam ndax sëriñ bi kat bi ko suñu borom mayee tamit tabax bu rafet taxutoon rekk soorool yu gudd rek taxutoon dafa bëggoon ku fi gis ku fi jëw boo jëwee fekk fekk fi nga xam ne soo ko daa dégg xam ni mu ci diine waaye soo fi duggee ba génn da fi fekk loo xam ne danga nga xam ne kii kat lim doon daj li ko taxoon a jóg weesuwut kaweel baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa ndax lan dañ fi fekk ak cet gu wóor fekk fi ak dosu fekk fi it euh, euh, diina joo xam ne da ku ko mën a royee faneen boo boo foo mën a dem loolu kon jàpp naa ne mooy liggéey bi bu dee lu aju ci waajtaayu màggal gii ci yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ngànk na ko du ma jëw ci koor koor moom lu beru la gis ngeen ne fii juróomi junniy nit ñu ngi fiy daje budget koor mat na 72 millions bokkut ak nag wàllu entretien bi wala bànqaas yi nga xam ne daayira bi kat mais bu dee màggal xam ngeen ne ñun ñëpp ñu ngi waajal suñuy kër di bale ak a peinture ak defaraat lu fa yàqu kon ni mu waree ci suñ kër yi ni la waree ci barab bii nga xam ne képp ku teg sab saak boo duggee Tuubaa teg sab saak li gën a doon sa yitte mooy nga ñëw ci barab bi fii ak defagoo ko da nga naan demaguma ci jumaa ji kon bu ñu doon ñetti million wala ñeent dana ñëw siyaare si kon dafay mel ne lu néew néew ñaari million ak genn wàll dana jëw ci jumaa ji kon loolu laaj nañu waajal ko loolu moo tax daayira Muxaddamatul Xidma li tàmbalee première safar ba nii may waxee yow ñu ngi ci waajtaay di ci dépensé xaalis bu bëri bitse bi nga xam ne mooy bitse màggal daaw toll na ci fukki million ak juróom-ñett 18 millions te loolu nag da nga ciy ndawal eh, gi buy nag yaag giléem yaag ganaar yaag ya ci aju loola moom bokkul ci budget bi loolu mooy séddalikoo ci biir commission yi boo xam organisation commission organisation rek jàpp naa ne seen budget mat na douze millions waxuma la ak yeneen commission yi ci des te loolu nag ciy génne yi ci des kon loolu liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ci te li ma lay wax fajukaay bii budget fajukaay bii nga xam ne moom it ay million moo ciy dem ngir xam ngeen ne fii barab bi ji fii daje léeg-léeg am na ci yoo xam ne ba nañoo indaale ay jàngoro wala ñoo xam ne kirisu tàngoor yi wala dara ban léeg-léeg foofu boo ñëwee fii da yërëm ñi fi nekk mbooloo ñoo fii daanu di ñu leen di taxaw euh, ren jii rek bi ma demee Italie daje naa ak soxna Mbay bi ci xam yitte joo xam am na fii ci garab maanaam doon nañ fa lijjanti ak benn tubaab boo xam ne dafay def social jaare ko ci sëriñ Ibrahima Diak nga xam ne dafa jiite association di yàqu soog yi lool ba may ñu joxe addiye ci jëm si ci jumaa ji loo xam ne valeur téeméeri million la ak ñaar fukk cent vingt million nga xam ne incha allah dina ñëw te jàpp naa ne loolu su ñëwee lu ko gën a doon jariñ gisuma ko loolu nag li tax ñu wax ko mooy ñu xam ne am ngeen ay mbokk ak ay taalibe yoo xam ne danañu seetaan vidéo yi ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu xam ne yitte ji bari na ci jumaa ji ci matériel ak ci taxawaay ak lu mën a doon kon nag jàpp naa ne su ngeen indee addiya ji toll nii muy ñetti million ak nangam mu tàbbi ci biir bitse boobu dana ñu amal njariñ lool li si ñaafee wax nag mën laay wax mooy yéen doyoon na leen sëkk gàddu gi ngeen di gàddu bale gi di ñëw fii doyoon na leen sëkk loolu xaj na ci yitte yi ku ñu am ak ku ñu ku ku ñu jege ak kuy soñ xarit ba des na ko cee jariñ lool fii ak ëllëg kon yàlla yàlla nangu jëf ji te taxawuñu te ñu yàgg ànd ngir liggéeyal sëriñ bi ndax liggéeyal sëriñ Tuubaa kat jafe na yomb na waaye lii tax mu yomb mooy pas-pas rek te def ngir yàlla te loolu lañ gis kon yàlla ñu yàlla gën a taxawu ngir loolu ñu gën koo def tawfeex ju rëy rëy la ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa rawatina ci waajal ko ci bisam bii nga xam ne moo waxoon ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma sant la yàlla ndax lu ma am ci bis bi la ko kon su fekkee ñun ñu koy santal yàlla ci barabam bii ci suñu ñaq ak suñu xel ak suñu alal loolu tawfeex la ju rëy rëy joo xam ne yàlla sëriñ bi nangu liggéey bi te ful ko rek te yàgg koo ànd bi barakati Xaadimu suñu borom it kattanal leen may leen gudd fan ak wér defal leen tawfeex joo xam ne danañ amuk wér danañ am kàttan te danañ am wërsëg bu bëree bëri boo xam ne lu ñu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa def ko ci yàlla ñu ko yàlla defal kon su ko defee soxna yi kàddu yi dal jàpp nañ ne suñ gënee gudd liñ bëgg a wax bu da xaj ci jataay bi wala jataay bi dina yàgg ndax foo takk rek bégte bi ak kàddu yi cant yi nga xam ne kilifay daayira bi ëpp nañ ko ngir jëme ko ci yéen ak seere yu rëy yi nga xam ne ñi yéen àndal di liggéey danañ koy seere ci pas-pas yi ak ci taxawaay yi foo ko takk weesu na ko kon yàlla yàlla def jëf ji saytaane bañ ci amu yoon te nangu ko te ful ko barakati xaadim rasul ñu ngi tënk kàddu yi foofu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu صلاة الذي في كل بزار وفي سفر